ndax nee dafa bëri wax. moom mooy kenn du tagg waxtaan bi. te avant ça. ma bëgg nga promettre ma dara. man ak yow. <laughs> obstacle bi bu ñu mën a traversé. Mhm. ñu yàgg ba nga bàyyi. suñu dëggante daal na aboutir ci mariage rek j'espère que tu peux me le promettre. Ah man moom je vous le promets euh, lépp loo xamante ne war na sama diggante ak yow pour mu dëgër mhm. dinaa ko def. ndax man maa la bëggal sama bopp. Mm. je vous le promets que ni man ak yow. ok d'accord mariage rek la ñuy def. ok xam naa maa ngi ñëw bàyyi la. Ah, yaa ngi ci jàmm am sa yaay mu ngi ci jàmm nee ko mu bàyyi la nag nga ñibbisi jot na <laughs> ah yaa ngi waaj ah waajal ñëw nag namm nañ la de waa kër gi yëpp la namm nag <laughs> xam naa ne kër yaay neex na nag waaye moom sëye ko raw ñëwal toog ci sa sëy bii <laughs> ah, awa fii suba di nga ñëw ginnaaw suba awa baax na <laughs> maa ngi lay xaar ay kër gi nii rek waaw <laughs> baax na ci kanam <laughs> ok nuyu ma sa yaay xale yi ok jaajëf xewal yaay amee dum ko doon ni umu umu laa doon waxal di war naa ni bis de nam nañ ko de. waaw léegi ginnaaw suba jàmm dina ñëw incha allah. mi <laughs> ah, rek. mi ngi fay bëgg yàgg daal. yaajee ko fa téye rek. mu toog. <laughs> yàgg na ko di. waaleykum salaam. man ngi fi alhamdulilah. yéen a bien. Dobrego, dalej. Mhm. dama sonn. moo tax gisoo fi mu nekk nii sama bët yi mënul sax gis ndax sonn. waaye fi nekk nii sangu rek laa bëgg. instant war a dem sangu ji. effectivement. mais avant loolu daa ma mën a bëggoon wax. mbaa jàmm la. tey moom damaa bëgg nga def fanaan nañ la fanaan. mais quoi ça. ah man maa ngi may sama demal rek. loolu wax la. ah lu ci nekk. bii hmm. ko dama xaw a sonn kay. yaa ko may saay. waaw. yow loolu nga gis. ah bien sûr. ah d'accord donc yaa ko may saay. Hmm. t'en fais pas benn problème mais tu me laisses juste le temps de prendre mon ma sangu. waaw baax na ah, dama nga sangu ja d'accord incha allah comprendre sax ma jóg. Mhm. summi la ma fayal la lamp defal la massage ko. soo sama bët dafa tàng tàng dafa tàng tey. nawet bi la. chérie. non non xoolal. Mhm. tëddal allonge-toi. ma mhm. fay lampe bi ñëw. d'accord je vous en prie. jigéeni Sénégal ñi déglu leen Miracle Shop dikkaat na ak doole Miracle Shop ñépp a ko xam ci wàllum vente en ligne moo ci raw kudul moom dikkaat ak doole di leen indil ay gamme yu totul type de teint gamme pour teint clair teint marron teint métissé ba teint blanchissant indi leen nag ay gélule yoo xamante ni danga koy naan ah muy réparer di éclaircir ak di hydrater seen yaram yamul foofu dafa indi nag ay teint amaigrissant yi aplatir seen vente moo xam góor ak jigéen yamul foofu de indi nag qualité yoo xam ne day booster seen âge fees ak sein miracle shop bëggatul benn jigéen di def di dem di def chirurgie dafa bëgg rek ngeen am lépp ci lu naturel mu indi leen nag lèvre rose en trois jours lèvre rose boo xam ni dafa ànd ak gommage ay patch pour diabétique yi defar sa yaram ba mu baax lépp lu jëm ci wàllu santé ak bien-être mu ngi ci miracle shop ay masque de visage ay huile essentielle ay gommage corps poudre blanchissante lépp lu jëm ci wàllu maquillage pédicure ak manicure lépp mu ngi ci biir ay crème épilatoire yoo xam ne day ànd ak crème Unibor yu toj ay pommade antibactérienne Miracle Shop daal lépp lu waay soxla ci wàllu bien-être dem ci sa yaram nga xam ne du am benn effet secondaire ci lu naturel ci lay dox yéen jigéen bëgg lu baax jànq ji ceeg ci ku fa dugg da ngay mel na miracle bu ñuy sànni ci biir jamono ma fàttali leen Miracle Shop dañuy amal vente en ligne boo duggee Facebook tàppel Miracle Shop Snapchat Instagram TikTok fépp la ñu nekk suñu numéro téléphone 78 127 00 24 78 127 Shop tojoti ngeen réew

ak yow jàmm mag may xoolal sama cin bi. ma xool ba xam ne saf na rek. te taxaw ay eh, taxawal noppi kon yow da nga xorom sama cin bi nii ba pare. ay doom waxal jàmm boo fen. yow kon merum yow xorom si yow boo ko doon sotti sama biir bool bi. man baax fi indi ah. yow eh, eh eh moom amoo loo expliqué mais moom wax naa la nga génn ci samay 18 waxoon naa la ngeen moytu ma soo moytu nag si kër gi dama lay dóor ba rey la te du mujj fenn. wuy sa ba day ah. ah. eh, bu ma expliqué dara trop c'est trop nag yow yaay lu kii jabar la du su wujju ah. dafa def maa ngi lay lu bon lu ne nga def ci kaw jaru na filan bii da nga bàyyi jàmbur eh doxal ñu jóg nag jot na ndax xale bi su ma ko seetaanee mi laa dinaa ñàkk sama doom xoolal li fi xale bi wax yépp ñëw rek si jooy maa ngi si jooy si toogal naa masta noppil noppil waaw ah, bàyyi sa eh, na jeex na ah jeex na jeex yow sama yaay xamul rek mais man je sais bien que ne xol bu rafet nga yore xol bu baax nga yore ah, maa ngi jégalu bu baax ci incident bi am léegi ah ah mon chéri ah, arrête de pleurer toi mm. hmm? bi boo gisee muy def lii yëpp parce que benn laa ci moom rek xam nga hmm, moo tax muy doxalee lii Ah, mais man bu ma xoolee comme doom man ma ko comme yaay rek. wax loolu wax loolu xam nga rek xam nga man benn laa ci moom hmm? loolu la xam naa loolu moo tax muy def nii waaw mais yaa koy comprendre rek waaw yow gën a la bës sa xol waaw gën a la bës sa xol gën a la góorgóorlu xam ne yow yaa yow yaay ñëw di sëy tu vois ah, mais garaawul da nga leen di comprendre rek dégg nga ma hmm? jógee ma woo bi mu commandé ñu añ ah. ah tu peux aller dans ta chambre mën nañ dem nga dem dallu nga tëdd nelaw noppale quoi ok jëbal vas <laughs> ah, nag yaa ngi marché Bonjour. foo nekkoon te da nga naan xëy si laa je me suis inquiété sa un peu ba jàmm la. ma taal du jàmm. c'était entre maire bi ak Nafina. maire bi nga wax. maire bi effectivement. la ñu war a jotee la moo xew. comment se fait-il que Nafina ah? ba des lu dul lii mu jël togg bi dem sotti ci xorom. non mais ah? est-ce que yow da fekk est loolu wóor na la. yow man maa ngi lay expliquer ngay wax lii ah xam nga li moo yàq sénégalais. du ngeen xam problème bi nu mu demee ngeen bëgg a nekk nekk di jugé. waaw jabar jabar la de bàyyi sa xel il est temps que man fekkee naa à maintes reprises nag naa de geste yu mel noonu yamale woo ko trop c'est trop man nag maa ngi lay wax en tant que frère il est temps que na fi na euh, nga mettre ko à sa place parce que mu yem place su jabar yaay yaay la. tel n'est pas le cas frère. ah léegi la nga bëgg a wax kon. non non mais tu te trompes sur l'image de Nafina baax la. d' accord de ter xeetu teraanga bu nekk. ba léegi waxuma la dafa bon bon mais. warul lu baax lu nekk dara bu ko considéré woon comme yaayam kon duñ agsi fii nii. en tout cas man maa ngi mais que considéré ko comme yaay. non bien sûr. ah bien sûr. mais ay def ci ci bi ñu war a lekk. ah yow noonu nga gisee ah? kenn du laal la fi nag. non c' man maa la tooñ. frère man maa la tooñ maa ngi def amul problème. yow kenn du laal la finance kenn du wax wax dara la finance. ok c'est bon. am na Sénégalais yi moom hmm? lii ku ma ko waxoon na waar da daw ba sonn mais à la fin dañ lay indil ay problème yoo xam ne doo xam sax fan nga koy nettali mais maire bi bett na ma trop waaye. yére yi ma indi tout blanc def tey ça te plaît. man kay maa ngi mel ni toog ci cinéma di seetaan. déedéet mi may neex nii. tey naa de. choisir après ban nga ma takk mu hmm. neex ci yow rek la des de loo bëgg rek. ndax tey na ko pare. bu baax nga leen ma gis. fa bi waaw. attends je vais voir. ok. enfin, ça va Qu'est-ce qui se passe Eh, eh,